joxe seen xalaat ci waxtaan wi salaamaaleykum allo. allo waaw. na ngeen def. sant yàlla ziaram maa ngi lay delloo ziar mbaa mbir yaa ngi dox. oui ñu ngi sant yàlla di góorgóorlu rek. waaw ah, yàlla yàlla na sant yàgg. bu doxul tam gëm na nit léegi mu dox de incha allah rabbi. acca am na solo. Hmm. <laughs> waa seulement. Hmm. comme saa yi moomu génn léegi rek. Hmm. xam nga euh, doomu aadama lenn rek mooy am quoi. Mhm. mooy yàkkamtee wax ak tamit wax li nga bëgg a wax. Mhm. yàkkamtee wax mooy ñii neewaguñ sa asalaamaaleykum. Mhm. kon boo toogee di wax ñii nii ñii nii kon da yàkkamtee wax. wala boog yow nga noonu leen ci sa biir xol yéene woon leen woon nguur gi. nga bëgg a wax te wax jotagul ngay wax ñaar yooyu fi nekk mais ku ne xam na ni sawaay réew kenn mën ñii to ñii toogaguñu sax mhm. mais ñu bëgg nag léegi lépp xalaat sax suñu borom subhaanahu wa moom moo ni allahu moom moo ni euh, nu mu tëddi inna laa xalaqa samaawaati wal ardi fii sittati ayyaamin mhm. suuf maa ngi ko bind ci juróom-benni fan su ko deexoon bindu ko en un kilomètre xefe xipi mais lan moo tax mu daal di yéex noonu biñ ko juróom-benn fan dafay jàngale li araam naan taa naf sax da ngay jàngale dangay ngay jàngale ni maanaam mën rek taxul nga war a def. Mhm. ndegem suñu borom mooy féete waxum la na nit ki nga xam ne mënul. yàlla mhm. koy dimbali rek. Mhm. te ñuy wax dëgg yàlla la ñu waxanteewoon ak askan wi. xanaa ku gëmm de wala boog nga yéene leen safar mais ñoom ngi góor si la ñu waxante woon parce que arxuraan ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy defa gum Mm-hmm. liñ fi waxagum liñ ci waxul lépp ci seen campagne yi ak pré campagne yëpp ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi góor góorgóorlu. Mm-hmm. ñoom ñoo doon kenn du ci dégg nga liñ ci wax ñoom. Mm-hmm. ci nekk wax nga teg sa tekki tànk. waaw ñoom ñoo ne woon ñoom ñoo ne woon dinañ def tout ba nga xamante ni ñi sàcc alalu réew mi ñoom du ñu fayantoo de mais nag alalu réew mi ñoom ku ko logoon di dinañ la dinañ la dinañ la tudd. te dañ dañ ko génn ah. <laughs> Mm-hmm. à mm-hmm. kon ñoom ñu ngi ci ñu ra wàcceeguñu raay yooyu. ah liñ naan dañu daa wa wa dana war a gaaw wàcc wàññi dund beeg yooyu mais seen lëlu bii ñu def ak gaaw farme gouvernement bi lan la ñoom ñu ngi ci loolu. dund ku ne xam na ni wàññi ko yombul. ah mais lii ñuy concerté wu nii di dajee di di ci hôtel di waxtaan di xool ak di jéem a récupérer alal gi ñu sàccoon mais pour loolu la. mais kon pourquoi nit ñi nag bëgg léegi rek Ousmane Sonko ak Diomaye taxaw rek daal di mel nii un coup ñu ngi yor benn base nuñu koy di baguette magique boo xam rek mu nekk mhm. ah? loolu suñu borom a ko dàq yëpp te defu ko nga nañ bàyyi yi def nii yàkkamti bi dañ koy jël teg ko nële dëddëw aussi xoolal ñuy amaguñu sax ñuy amaguñu sax xool booy xool deux mois ci nguur gi bu dee sax weer mat mat nañ weer ah mhm. matagul sax weer wala ci lay toll léegi nag ñoom ak ndëfi gaa yi yàq lépp ah ñu war a jubban ci loolu ñoom sax xanaa bu ñoom ñoom ñoom dañoo gore rek mais moo nañu ñun bu ñu toogee ah bala ñuy def lenn di leen mhm. jubbanti liñ ci gaa yi yàq ba pare ba toog nag ba nga xamante ni ne léegi ko bëggoon amee ko yi mhm. sogo nag jublu ci ci ci ci ci nu wàññee affaire yi mais defuñu ko ñoom dañ ñun bu ñu toogee di def tout ba dund bi favorable ci képp ku mën ak foo mën a door ah ak foo mën a nekk nga nga nga jëm cee jot ah mais ñoom ñi ngi toog di jaayante loolu daje bii ñu daje hôtel di concerté wu ak di fal l'homme qu'il faut à la place qu'il faut kay loolu moo tax ñoom defuñu par parloo ah. Mm-hmm. ah te gis nga saa yi saa yi si bëgg a yàq da ngay dégg naan diw xeexoon maa ngi dégg benn benn benn benn benn professeur économique mu naan mu naan nee na ma expert en économie la mi ngi naan ñu koy wax abu wele xaw ma. Mm-hmm. moom moom moom moom moom dama ko nawoon lool ci xam-xam mais démb bi ma déggee waxam dama dama yéemu quoi mu naan euh, may mun a busoo. Dame Mbodj ak professeur Amar Diagne dañ leen waroon a tabb ndax ñoom mais est-ce que Ousmane Sonko loolu loo xamante woon na gars yi da doon ànd bu question paacoo mhm. réew mi ku yaakaar ni yow boo xeexee pour ñu paajoo la cër la moo tax nax nga sa bopp ñun dañ taw ku ne fa nga mën a nekk nañ liggéey nañ liggéey réew mi loolu la waxoon mhm. <coughs> loolu la loolu la waxoon te loolu effectivement effectivement loolu loolu c'est un geste à apprécier ah parce que yow kii bu ko fekkoon ne affaire par par loola day xool ñi nga xamante ne ay combattant lañ mu xëcc leen tàbb leen. effectivement ah donte weesul si ñoom sax mais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mhm. yaa may dégg léegi nag Ousmane son loolu lay doxal ñun nag Sénégal li ko yàq mooy yàkkamti ñu ci bëri sax ñoom xam na ni lii ñuy toow du yàkkamti de mais mënul ne mais dañ fay jaare pour jéem a dox ci maayelu doomu aadama yi. Mhm. mais maa ngi ñaan yàlla képp nga xamante ne falu nga ah comme li ma sànq rek. suñu borom mi nga xamante ni moom moom moom univers am moom lépp lépp lépp lu fi am moom la moom moo ni man maa ngi bind asamaan ak suuf li mu di riis riis riis mhm. maa ko bind ci juróom-benni fan bu ko neexoon bind ko ci xefex ci bii mais boo gisee mu bind ko loolu dafa am lu muy jàngale dafay wax dafa dafay wane ni maanaam def ndànk-ndànk dafa baax mhm. parce que yàkkamti yàq yàq yàqule yàqule yàkkamti yàqule. dégg naa sa benn dégg naa sa benn paa naan yàkkamtee di yàqatee. waaw <laughs> Ibrahima Sakho. loolu loolu na solo trop. <laughs> walaay sërëm kon ñu jéem a ñaan gaay rek ñu jéem a xam mhm. am tuuti patience. effectivement parce que réew réew mu toll woon ci ci ci. xëy rek lépp sotti ah mënuñu ah. xëy rek. il faut il faut il ñu wax ko mënuñu xëy rek lépp sotti parce que itam loolu suñu ko defee euh, day indi yeneen jafe-jafe donc il faut quand même que nguur gi nekk jël au moins deux à trois mois évaluer li nga xam ne moom fa daal di nekk rapport yi nga xam ne tàmbali nañ ko publier li nga xamante ne euh, jot na ko fay jur ci wàllum loraange ñu jëm ko saafara ah. loolu dina indi euh, ngëneel ci dundinu askan wi li nga xam ne attente la ñu war a liggéey gouvernement bi je que ci lañ koy daal di mën a door donc il ne faut pas être pressé. Ah. nañu jéem a muñal nguur gi fi nekk man moom je le dis ah. trois premiers mois yi du neex ci sénégalais yi mais nañu xaar ci ah. six premiers mois au mois ci les les premiers résultats les premières décisions défini euh, décisives yi nga xamante ne moom la nguur gi di jël ci lay commencé am impact yu visible ci ci euh, ci askan wi. Mhm. waaw kay li ma bëggoon wax sax moom moom waxal yow Diop. Mhm. tey yow da ngay rek. Mhm. mais logique dafa am quoi dafa am loo xam ni bon parce que yow yow kii boo xoolee li muy def nii. Mhm. di jéem a sulli rapport OFNAC yeeg yooyu pour épingler. Mhm. ah mais mais am na xaw ma c'est l'homme di Burkina Faso wala xaw ma bu bu mag kan moo ci toogoon soldaar bi mu ni may naa ultimatum benn euh, quarante huit heures ci ñu sàccoon ñëpp xam nañ leen nañ indi xaalis mais dajale na ñaata milliards xaw ma. pour delloo. Ah, voilà léegi nag loolu da koy jël. da ko jël pour def ko mhm. léegi ci ci li mu diggee woon. pour mhm. pour xee pour pour pour pour xeex ko ci gën euh, koo jàppale ci xeex bi mu bëgg a xeex pour du yomb ci nit ñi. Mhm. kon ba tey ñoom ñu ci liggéey bi. effectivement ah, parce que kenn du ci dara di lebi. léegi nag loolu gars yi jël sàcc ko loolu lay rassembler léegi pour mën koo mën ko def nag ci xeex bi. kon maa ngi ñaan képp kuy patron patron du question ay waa Pastef ak ay ay ay ay waa Yewwi non non mais patron. patriote mooy képp ku bëgg sa réew. Mhm. te sa réew ñor loolu mooy patriotisme. léegi nag yow loolu boo ko bëggee comme ni ko waxee da ngay may gars yi patience ñu ngi soog a ñu ngi def ay effort. Mhm. dañ di ay jàmbaar mais na lu doon demee ñoo def da ngay toog fii ay 6 mois sax. gis ñu ah. soog a mhm. mais toog rek commencé appliquer li nga waxoon lépp ndeysaan. ah gars yi dañoo bëgg toog muy dox de. xam nga xam nga toog muy dox mu ñuy wax. ngay dañoo bëgg yëpp yi wëlbatiku ñu daan toog muy dox ñoom ñu dem ñafe ñoom ñu nga <laughs> ñoom ñoo daan ñafe di sonn ñoom ñu ñuy toog muy dox daal entre guillemets pas muy dox nga ne yàpp ne yàcc ñeesar euh, yëf yi di dox sa boor euh, ñi nga xam ne dox woon bokk mën a gis seen bopp vraiment ci yorinu nguur ñu sentir seen bopp ne évaluation euh, évolution plutôt am na ci ni nga xamante ne noonu la ñuy téye nguur ba askan bi yëpp ku ci nekk nga mën cee gis sa bopp sokale ko daal dem rang ca rang ba ca ngelaw la xam nga photo bi dafa toll ak mbóoyee mhm. ah dem takk suñuy masque di rang di rang di rang taxal suñuy loxo engrais mhm. loolu combattre loolu moo taxoon d'accord kon bi ñëwee ba yàlla ba yàlla may ñu ko nag mhm. ñun buñ gën a buñ gën a gore nag suñu boroom yaa may dégg kon nañ bàyyi yàlla yàlla mi ñu teg tege te foogoon attention foogoon nañ ne nag li gaa yi fi ne pour ñu tàgg ak ñoom musiba dina am de par yàlla yombalal ñu ko nag effectivement taxul sagar xeeñul patience boobu ñu am ba yàlla may ñu ko na xeex ñu mhm. suñuy kat lañ yaakaar yàlla teg nii mhm. dañ amaat patience boobu nag incha allah bàyyi gars yi ñu nañu xaar ñu dem man dama naan ay trois mois tuuti nan la fay xoolal fii six mois sept mhm. un un an waaye pour ñu rétablir l'ordre waaw asalaamaaleykum d'accord merci merci merci beaucoup merci merci euh, beaucoup di ko nuyu di ko jaajëfal am na solo xaw na xaw na guddal itam ah gars yi ñoo ngi koy kaas ci suuf mais euh, compréhension rek ñu xaw a dawal compréhension tuuti tey la ajuma gars yëpp dañuy bëgg dabu ñi nga xam ne dëggu ñoon ci biir semaine bi euh, occasion tey ngir dabu waxtaanaat ci lépp li nga xamante ne war jotoon nañ koo wax ci biir semaine bi ñenn ñi xëy na am sujet yi nga xam ne rëccoon na leen ajuma da ngeen koy mën a dabu ni mu leen koy waxee saa su nekk rek ndax antenne libre la ñuy daal di def ku ci nekk yaa xool fa la waxtaan bi ëppalee nga gën caa mën a wax 77 ngay def 810. waaw salaamaaleykum 90 appel direct wala appel whatsapp Diallo na def. maa ngi lay ziar woowee naka waa Italie. Ah, waaw waaw maa ngi woote Italie. <laughs> mais Diallo dégg-dégg bi daa desee neex de est-ce que doo ñu baal yokk da nga takk ay écouteur wala. Euh, dégg-dégg bi daa desee neex maa ngi yuuxu de. Mm-hmm. waaw maa ngi nuyu ñëpp rek. Mm-hmm. normal na. waaw tane leen tuuti rek. waaw tane leen tuuti ah tane leen tuuti nag xaw na xaw na